mardi 30 juillet 2024 ñu ngi leen nuyu bu baax a baax chers téléspectateurs di remercier euh, les fidèles téléspectateurs ci seen euh, euh, programme bi nga xam ne mu ngeen di àndal toute la semaine di édition du soir tey di deuxième numéro de la semaine ñoom plaisir di fa recevoir docteur Adama Faye nekk enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk en même temps porte-parole parti bu la République des valeurs bu Thierno Alassane Sall moom lañ fi dalal tey monsieur Adama Faye ñu ngi lay nuyu di la remercier ci bi ñu leen di di gërëm kontaan ñëw fii et def quelques précisions aussi c'est Samba Faye mhm. euh, oui oui euh, di kontaan ñëw fii comme ni ma ko waxee euh, Walfadjri quand même ñun 99 bi muy nekk rajo tout le temps je le rappelle moo ñu jox quand même une conscience euh, politique une conscience citoyenne tout simplement di leen masawu aussi en même temps parce que depuis incendie bi mu fa amoon euh, ñëwum fi woon mhm. euh, donc di ñaan yàlla ndog boobu noonu mu bañ fi amati donc di di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu sama doom baay aussi kontaan ñëw seen plateau merci merci docteur Samba Faye enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop nekk en même temps porte ba fay nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Khady euh, di nuyu suñu téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp di nuyu sénégalais yi euh, di nuyu internautes yi ñuy suivre suñu plateforme yi di dalal suñu gan gi docteur euh, sàmba sàmba Samba Faye sama doomu baay la. Euh, di euh, amaat mbégte bu baax teewaat fii pour waxtaanee actualité bi. d'accord actualité tey bi reste marquée par remise des prix des lauréats du concours général édition 2024 mu nekk édition boo xamante ne tey am na euh, yoo xamante ne am tàmmuñu di ko gis d'habitude dañ leen koy jox jox leen seen cadeau soit ñu dem jox leen ay li nga xam ne mooy seen comme on le dit seen cadeau. ñu dem mais tey dañoo gis ñu def parade dem. mu nekk lu le roi et la reine <laughs> le roi une façon d'initier euh, les élèves et autres étudiants yi nga xamante ne vraiment ñu ngi ci yoon boobu alors concours général Ayoba. oui euh, c'était euh, 3203 candidats au début. ñoo doon concourir euh, ci loolu nga xamante ni chaque année quand même bi loo xamante ni c'est une tradition mhm. euh, devenue républicaine euh, nga xamante ni élèves yi gën a xarañ quand ci territoire national bi la ñuy la ñuy primé foofu sur autant sur les dans les séries scientifiques dans les séries littéraires littéraires tey jii nag ku kenn ku jigéen mhm. ku ñuy wax Zeynab Yérim Samb moom moo jël euh, encore une fois rawgaad yi je pense que année yi ci je pense que année yi jigéen ñi mm-hmm. euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi euh, vraiment ngi ñi ngi excellé surtout ci série scientifique yi le pion aux mm-hmm. aux surtout ci série mm-hmm. scientifique yi tey jii sur 100 distinctions remises quand même il y a eu 57 filles et 43 43 garçons donc voilà c'est un pas en avant vraiment boo xoolee ni 10 ans en arrière wala 20 ans en arrière on parlait du problème de la scolarisation Euh, des fi au Sénégal tey mhm. jii je pense que étape boobu dox def nañ ci jéego yu jéego yu jéego yu jéego yu am solo donc euh, gis nañ tamit ni euh, jox nañ leen ay ndàmpaay yu yu am solo mhm. yoo xamante ni peut-être dina motiver ñeneen ñi mais président bi dafa dafa dafa tenir discours wax ci lu am solo mooy mhm. dafa dafa dafa remarqué ni quand même série scientifique yi taux bi nga xamante ni moom mooy élèves yi fay dem dafa dafa wàcc bu baax ba yegg ci set pour cent ci ci ci ci bac bi ren ji donc mu ne euh, pour ñu euh, aspirer à n'importe quelle souveraineté faut que ñu développer suñuy suñuy suñuy science à travers des séries scientifiques. on voit de plus en plus élèves yu séries scientifiques dem ci littéraire rarement gis le contraire. Euh, je pense que bon je n'ai contre rien contre les séries littéraires parce que man littéraire là et tout. Euh, littéraires yi au au bout du temps maintenant ñoom ñooy ñoom ñooy nekk dans l'administration je pense que c'est eux qui gèrent la cité pour la plupart du temps en tout cas mais pour développement réew ñu consacré ko science def ci am solo bu bu mag te loolu mm-hmm. les pays occidentaux duñ duñ wax le contraire tey jii mm-hmm. technologie fu mu àgg ak science yi fu ñu àgg euh, je pense que moo indi seen développement. surtout surtout les pays comme les nouveaux pays wala les pays émergents le cas Euh, de la Corée da ngay xool wala le Japon nga xamante vraiment ils sont très en avance ci éducation lañ ko jaar surtout promouvoir euh, les séries scientifiques mais c'est la base c'est-à-dire boo bëggee construire benn génération ci ci éducation rek nga ko mën a jaare et il faut être patient moo tax tey président bi appelam bi bu mu lancé quand même aux aux enseignants ko yu mel ni docteur euh, docteur Samba fay mm-hmm. que defaraat programme yi rendre leen plus pédagogique et plus attrayant de sorte à attirer quand même euh, la majorité des des des, des apprenants dans les séries euh, scientifiques. surtout ça euh, plus attrayant parce gis nga boo bëggee agriculture bu développé scientifique yi ñoo la ci mën a dimbali soo bëggee élevage wala pêche industrialisation scientifique yi ñoo la ci mën a dimbali bu fekkee nag yow sa dëkk sur cent élèves sept yi rek ñoom ñooy ay scientifique ça pose. énormément problème. mais est-ce que aussi mënuñ euh, nga xam ne xool seen note mag mat su fekkee am nañu ay 10 11 may leen chance dem xool. en fait dañu war a restreindre juste littéraire rek. pour man dañu war a am ñoo xam ils sont moyens. man dañu war a méngale njàng mi ak jamono ji jamono ji tey jii te bu ko méngalee je pense que ñi nga xamante ni ñoo am ay préjugés wala ay a priori ci série scientifique yi dinañ gën a ñeme série scientifique yi wala sax ñoo xamante ni dañuy def série littéraire après mën nañu am ay branches yoo xamante ni mën leen dugal ci ay. d' accord ay ay kii scientifique. d' accord mënuñu wax enseignement am professeur enseignant chercheur à l'université Euh, di euh, docteur euh, Samba Faye mm-hmm. alors concours général bi comme ni ko Aya booba gis nañ ni les femmes les jeunes filles ñi ngi nekk à l'avant ñi ngi nekk ci kanam bu baax a baax ci li nga xam ne mooy ci lauréat yi alors comment faire pour promouvoir les séries scientifiques ba xale yi gën ci mën a intéressé wu alors d'abord di di féliciter lauréat yi euh, féliciter aussi seen parents yi leen accompagner mais surtout ñi leen jàngal ba ñu yegg si fii parce que bu ñu ne ndongo bi mën na dañu waxaale ne ki ko jàngal tamit mën na di di rêver aussi ñu dem ba ni ñu koy defee ci école bi mais mu dem ci concours général de l'innovation concours général de mu am mu mu gën a bëri ci aspect yëpp pour stimuler. Mhm. Euh, loolu bu weesoo nag effectivement Sénégal dafa amee quand même un gap bu mu war a résorber maanaam ñun dañu soxla ay béykat yu xarañ. yoo xam ne dañ leen former méngale leen ak jamono dañuy mën ak oto yu bees yi ni nga xam technologie kese la mm-hmm. soxla yooyu noonu yëpp donc njàngale mi nécessairement dafa war a dem vers foofu et nécessairement sax entre lycée ak université bi dafa war a am aussi beneen brèche boo xam ne nit ñi dañuy defi ay formation technicien pour mun a mm-hmm. mun a euh, euh, jëmal lool mm-hmm. parce que njàng mu gudd bi du ñëpp a koy mun di def loolu noonu la askan bindoo donc euh, oui ñoo ngi encouragé encourager dans ce dans ce sens là série euh, scientifique yi ñu gën a ñu gën a développer mais man dama jàpp ne c'est c'est culturel xam nga Sénégal boo seetloo ci famille yi sax euh, ku ku ku mag ki série bi mu njëkk bi mu jël day influencer ñi ci ginnaaw le Sénégal a eu depuis début indépendance yi ñoom Senghor ñoom Lamine Guèye ñoom tri nga xam ne ñooñu mhm. c'est quand de la littérature et ça a influencé le pays dañ dem ba wax français bu rafet nekkoon compétence en soi donc yooyu noonu nag moo ñu dab ba fi mu ba fi mu nekk nii il faudrait que ñu ñu ñu tourner euh, angle bi. les STEM on dit on disait du temps de Mary Teuw Niane je trouve que c'est des choses qu'il faudra euh, développer parce que mënuñu on peut pas faire l'économie de la science. de toutes les façons pour entrer bi il y aura de grands changements notamment euh, l'intronisation de li nga xamante mooy la langue anglaise dès l'école primaire. le ministre de l'éducation nationale euh, wax na ko nee nañu dès la rentrée. loolu quand même waroon nañ ko école privée ñu koy def depuis ah, primaire. école privée catholique yi ñoom primaire ngay commencé di jàng anglais. ak langue anglaise fu mu toll ci euh, àdduna. Euh, vraiment outil bi mu nekk. vraiment nga xam ne université ci àdduna bi yëpp dañ koy ci ci langue boobu pratiquement dañu jàngale tey ba 2024 di doog a introduire mhm. la langue anglaise euh, a wax comme actualité du jour mooy mbirum migrant yi euh, Ayoba Faye euh, gis nañu marine nationale am na ay nit yu mu intercepté nga xam bëggoon dem fee nga xam ne mooy Espagne waaw il faut noter que migration bi quand même c'est waaw duñ taay di ko wax ah depuis juin 2022 malgré les morts dafa yi doon na xam nga vague yi par par période la woon c'est-à-dire bu juin jotee euh, nit ñi dañuy dem ba septembre octobre après bu kii bi sedd bi waaj a dugg ñu daal di arrêté mais léegi dañ dañ constaté 2023 2024 quand même que depuis 2000 juin 2023 que vague yi arrêté wul benn yoon amul benn période même sedd bi bi muy sedd di sedd di sedd janvier février nit ñi dañ doon jël géej gi di dem ak condition météorologique catastrophique yi moo tax sax décès yi dafa bari woon euh, ñu remarqué quand même que ni dernièrement Euh, bi ñu amee alternance yaakaaroon nañ ni quand même jeunes yi dinañ euh, dinañ gën a jël résolution. Mm-hmm. des ci réew mi. Euh, puisque situation yi ñu fi doon dund entre deux mille vingt deux deux mille vingt trois ba début deux mille vingt quatre peut-être situation yi jenn réew mi gën naa dal. mais remarqué nañ ni quand les vagues ne pas estompées du tout. au contraire dafa gën dafa gën di bari. donc ñu remarqué ni euh, en quatre jours. quand mm-hmm. entre le vingt six et hier le vingt neuf marine nationale. Euh, intercepté na euh, pas moins de trois pirogues yoo xamante ni à leur bord y avait pas moins de 589 personnes euh, 589 personnes yooyu nag euh, li ci ëpp peut-être du ay sénégalais être ay gambiens ay malien ay ay guinéens ñoom ñoo ci ëpp mais y a des y a y a une bonne partie quand de de sénégalais am na benn gaal kenn sax ci gaal yoo xam ne bari ñi. la départ la déparé. Euh, donc loolu day day day wone rek ni quand même euh, les nouvelles autorités war mhm. nañ gën a euh, bàyyi xel lii nga xamante ni. mooy waaw mooy mooy immigration clandestine parce que li ma li ma seetlu man mooy depuis bi ñu toogee ba léegi quand mhm. waxuñu ci waxuñu ci lu bari en tout cas même bu fekkee wax nañ ci c'est très très très très rare. et il y a eu quand même des drames au mois de. au mois de juillet. Dans ce mois de juillet, il y a, il y a au moins trois drames et des, une centaine de morts, une centaine de portes disparues. semaine passée, il y a en Mauritanie. Euh, il y a eu au moins morts et une centaine de portées disparues. Donc, pour euh, le président et le premier ministre Et le ministre aussi des Affaires étrangères D'accord. Alors, ayo bu ñu jeexal ko ak li nga xam ne mooy euh, mbirum Ahmed Suzanne Camara euh, tey nga xam cabinet de dépôt donc ko mu nar a passé euh, guddeem gu njëkk fële ca euh, prison bu Rebeuss ay mbay la nga def ci analyse bu soft balaa ñu dugg ci waxtaan bi. bon man analyse bi ma ci defoon keroog euh, ci émission keppaar bi laa ci defaatoon pour man dans dans une démocratie. quand même. Euh, di signaler que le réseau des enseignants oui après génn nañu nee nañ dinañ ko apporter leur soutien bien sûr. bien évidemment en plus ils s'insurgent nee nañ ce qu'il appelle benn acharnement man li ma gëm mooy dans une démocratie quand euh, yenn égard de langage yi envers les autorités waru tax ñu yóbbu la euh, waru tax ñu yóbbu la kaso. je pense que sous Macky Sall quand même loolu moo yóbbu ay nit ñu bari bari bari bari bari ci kaso bi. ay post Facebook di saaga ay kii ñu jël la yóbbu la ci façon bi pour man Ahmed Suzanne li mu waroon tëddee kaso du loolu li mu waroon tëddee kaso pour man mooy ñaari mbir benn d'abord génn na fi euh, et pendant que le même procureur était là hein. pour lu mu wax ni euh, à l'encontre du président et du premier ministre waru waruñu ko ci téye. dans une démocratie non ça c'est ma conviction. dans une démocratie à liberté d'expression mais, mais mais aussi euh, trop de liberté se donne libertinage Ayoba. si on remplace bu président turu premier ministre teg ci sa tur rek. xam nga man dañ may saaga man dañ may saaga chaque jour bi ma saagaa daf may metti mais est-ce que pour autant damay dem ci police bi di porter ay plainte non ne le fais pas ça c'est au nom de la c'est au nom de la liberté d'expression mhm. et puis euh, cet article 80 là euh, euh, opposition bu fi jaar nee nga nañ ko nañ ko dindi nañ ko nañ ko dindi li ma doon wax mooy Ahmed Suzanne Camara il a menacé de mort Ousmane Sonko bi mu nekkee opposant boobu dañ ko ci waroon jàpp procureur bi dafa waroon autosaisir à l'époque ñu jàpp ko. te même procureur boobu fi nekkoon. moo fi nekk ba léegi euh, nu mu tuddati il il est il est allé dans une télévision wax ni ñi nga xamante ni ñooy euh, ñooy ñooy ñooy ñooy kii euh, les les les les agents Fulbert Sambou et Didier Badji dañ leen a rey. alors que à l'époque ah. procureur bi noyaat la waxoon ak disparition. moom moo njëkk a wax dañ leen rey moom moo njëkk a wax dañ leen rey te jusqu'à présent kenn woowu ko déglu ko. je pense que su ñaari affaire yooyu lañ ko waroon woo. mais mm-hmm. ci ay écart langage ak provocation bi xam ne. après peut-être daf ci am. boobu boo xamante ni. Mhm. il ne mérite pas. mérité wul Amath Suzanne Camara. def la une de nos journaux man loolu laa nekk. alors docteur euh,